mbokk yi jullit yi ginaaw bi nu sante yàlla julli ci yonenteem ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa mi di ab ndawam di yonenteem noo ngi bal xaq ñëpp tey balu xaq ñëpp yàlla nanu yàlla boole jéggal sunu diggante ak moom te jaar sunu diggante ak sunuy moroomi jàmm ba bu ëllëgee yowmal xiyaam kenn ku ne la nga sa mbokkum jaam moo xam ab jullit la wala bi yéefar ci ay ñagi-ñagi xol ak yooyu yi suñ boroom kenn ku ne mu teglu lu doon ci sa yoxo ba ñu bañ faa téyante yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla yombal amin mbokk yi ba tey ñu ngi ci téere biñ tolloon di silkul jawahir di téré bu mata jàpp xel ñu xamé ak borom tuwa ay njëriñ yi kessé nek ca njëriñ yi gëna kawenti ci njëriñ lañu wax waye amu ci benn boo xam ne njëriñ la sax dana néew waxin la ba tey ñu ngi woon ci buntu bi ñu borom tuubaa doon misal di ñu wax ñu mën a wattani ko àdduna ak ci aju ak mbokki aduna yépp dimb ñu waroon wax ci euh borom xam-xam yi fi jiitu ni ñu doon dawe buur yi ak di leen wattandiko kuñ naan harun rasid dafa ma sa yabal ci al imam malik radiyallahu anhu ci mu dikk ca moom indil ko téere bi mbindoon di Muwatta téere bu siiw la xamis na ko ngir mu déggee ko ci moom bim waxee loolu al imaamu Malik imaamu Malik ne ko xam dañ koy siyaare si du siyaare ji rawatina jëm ci buur waaye mu wax amirul muminin ba ne ko wattanikul di sànq xam-xam wala di ko gàccaal suñ borom dina teg gàcca lu mat ci xel war nañu yoon wu ñu mën a jaar waaye eh, benn buur tam bu nekkoon Buxaara buuru Buxaara moom it defoon na ko eh, al imaamu Buxaari defoon na ko al imaamu Buxaari bi mu ñu tuddee saxiixul Buxaari Eh, albuxaara woolu woon na ko ngir mu andi saxiixul buxaari ngir mu jàng ko ci moom mu déggee ko ci moom al imaamu wax ko wax ju am solo ju mat a jàpp xel moom itam ne ko moom jim boppam du toroxal ko gàccal te du jug mukk ci kër buur yi daan ko su fekkee ne am nga aaju joo xam ne ci man la jëm nanga ma teewal mooy na nga ñëw ci sama jàkk nanga ma fa fekk wala nga ñëw sama kër nanga ma fa fekk waaye du yëkkati samay tànk mukk jëm ci sa kër ngir lim naa la ko andil mbokk yi lañ doon wax diw ni waroom xam-xam yi fi jiitu woon dañ doon ndaw buur yi buur yi di leen sàkku suñ jamono nag waroom xam-xam yi ñooy dem ci boor yi buur yi di leen daw lu mat a taxaw seenam moo tax eh, kuñ naan Sufyaan Suuri ak njabootam dañ koo mës a bind benn bataaxal ne ko dañoo seetlu ne ñun ñàkk nañ soxlawoo nañ ak dund boo doxoon ba ca buur nga dem fa boo fay jóge dana la jox lu duun ci alal lu sakkan boo ñëwee ñu mën ci dund lu yàgg-yàgg Asufyaanu Suri ku baax la ku siiw la ci wàllu mbaax lool bi ko ak njaboota waxee loolu mu leen man de adduna yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala mi ko sàkk mi sàkk adduna duma ko ñaan adduna comme que nag duma ko ñaan ki ko sàkk naka laa koy ñaanee koo xam ne maag moom ñoo ci bokk yam moomut adduna ab jàmm la ca ni man mbokk yi lu ma taxaw seetlu ba tey ba tey ñu wax ni nañu wattaniku ba tey mi ngi wattaniku di dox di jëm ci kaw kër buur yi benn dugg ci seeni kër mën nga caa amee ak mooy yàlla wala benn mënoo caa mucc te yaa ngi fay fekk benn nga fekk fa kuñ tooñ nga war caa wax doo ca wax ndax buur ba fa nekk wala nga fekk fa buur di atti atti boo xam ne maandiwut jël dëgg teg ko ci kareen jël tooñaange teg ko ci ko moom dëgg nga ne ca pat patiral wala nga yegg fa di takk but di ko tagg naan ko nangam ak nangam te lan cee wax dara néew ko ca ngir loola baaxul wala nga yëgg ca ca barab toog fa kawe di wax wax joo xam ne leer la amul ci biir ba tey tooñaa ngi la ba tey ak jenn la moo tax ñu ko wattaniku loo euh, moo xam na te yi ñu waxoon dem moo xam kiy jug di fa dem ci wàllu bu fa mën a demee ne nga ko wattaniku ndax bokkut ci li nga xam ne dina tax ñu siggil xam-xam ndax bu fekkoonte ne waroom xam-xam yi dañoo booy boycotté niti adduna yi buur yi ak seeni jaraaf bu yar gi danañ daw ñëw danañ xam ne ñoom liñ yor amul solo waaye su fekkee ne ñi nga xam ne nag ñooy wooy ay ay waroomi xam-xam jóge seeni kër walla jóge ci dëkk bàyyi fa seen lépp dem ci kër buur yi ak seeni dàkk bu yàggee dañuy jàpp ni ñoom lañ nekk lu baax la di wéy di tooñ moo tax ba tey euh, mas nañoo laaj ak Sufyaanu Suri ni ko ndax tooñkat bi nga xam ne muy buur yi rek euh, dem na bay bëgg a faatu nga xam ne bu dee bu nënu ndox faatu ndax mënees na koo jox ndox mu naan Sufyaan Sawri ne ak ab tooñkat bu demee bay bëgg a faatu boo ko joxee ndox mu dund bàyyi ko mu dee ndax boo ko joxee ndox mel nga ne ko dimbali day dund bu dundee day mel ne yaa ko dimbali day wër nekk ci kaw suuf di tooñ di yàqate di notaate te loolu da koy waral mbugal mu a yàgg rek kon bu nañ ko bàyyi mu faatu noppalu Euh, ba tey mbokk yi al Yadaali al imaamu Yadaali waxoon na lu am solo lu mat jàpp xel waxoon na ne nañuy wattaliku liñ naan euh, di faalu àtte mu ne àtte lu diis la lu metti la mu ne na ngay fàttaliku ëllëg yowmal xiyaam bu sunu boroom dajale mbindeef yépp ci benn barab mu woolu la ci yow yaag moom képp di la laaj di nekk ak yow ba nga yaakaar ni yow rek la suñu borom bindoon mu ne na nga wattaliku ñu lay fal ab attekat nga cay bég alxaadi nga cay bég di ci kondaan ne boo ko xamoon koy daw ne képp koo xam xam na li ci atte ñu fa ñu fal ngay atte xeet wi ak eh, moo xam dëkk ba nga bu ko mën a daw daw ko dëgg la li tax ñu koy daw dañuy ñëw ci karam eh, mu wax ni tam bu fekkoonte na ne dañ laa fal ab attekat nga doon attekatu Baghdad wala Misra réew yu am solo bu mu tax nga nangu ko ndax la ci nekk ndax àqu joo jox ko kaneen ku ko muut ëllëg yowmal xiyaam am ko layo ci sa boroom ndax loolu àq la joo xam ne day dox sa diggante ak sa moroomi jaamu bari ana nit ëllëg yowmal xiyaam digganteem ak boroomam bu ko fa téye waaye digganteem ak moroomi jaam i ñoo fa fay ndax suñ boroom foofa ak fii yërmaaneen ju doyewu ko dara jaamam ñi rek moo tax mu sàkk ko waaye sa mbokkum jaam moo ko ab jurité wala bi ak yi nga xam ne dox na say digganteem ak moom mën na la ko baal fii waaye ëllëg bu kenn ku ne jàkkaarloog tiis wa ak naqar ya mu baal la ko du mën a déet waaye dana jafe yàlla noonu yàlla defal jégg ak topp tegal ñu suñu tànk yoonu siraat al mustaqim يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين